parce que dafa am am li xew. Moussa Baal ma am li xew ci Sénégal. ngir yàlla nangeen ma déglu bu baax a baax ma wax loolu. déglu leen làmb foo làmb du ŋaayoo. làmb du jamante. làmb du sànnante kaddu yu ñagas yu bon déedéet xam ngeen fi ma dëkk Sané laa sant Casamance laa dëkk te fii mu ne fii ci biir fii kenn gënuma dégg joolaa xanaa ki ma jàngal joolaa waaye doo ma fi jàngal joolaa fii ma toll nii kon làmb affaireu foo la affaireu kaf la mag ñi ñoo ngi toog di seetaan xale yay dem ca làmb ga bu loolu amee Modou mii xale bu yaru la ku ko xamul mun nga wax lu la neex waaye man mii ko yor depuis ba mu nekkee xale moom Modou dama koy dóor du du yëkkati nii lay def nii nii bu xasee def nii jeex na xoolal nu mu tegee loxom fii mu weddi lii xoolal nu mu tegee loxoom fii xool gën ko jege baax a baax gis nga lu mu tege loxo comme am ndongo boo xamante ne waajur koo xamante ne waajuram dundul yar ji moo yàgg a nekk ci Modou Lo yenn yi nga dégg nit wax loo xamante ne la mu warul wax moo tax kontaan naa lool benn mbir laa lay wax muy Gambie muy Casamance fu ne kenn ëppale loo waxal loolu waaye. fu ne fa ndax fu ne am nga fa ay mbokk am nga fa ay nit mbokk nag du bokk ndey bokk baay déedéet fu ngeen jógee du Gàmbi lu tax ngeen ñëw ba fii lu ngeen bokk ndey bàyyi ngeen bokk soppa sama photo moom dem da indi ah, moo tax ngir yàlla man de xaw ma kan moo ñaanalul Modou man de ñaanal naa ko man te leer na ma naññ ni ak nu mu munta demee bu combat bi continué woon rek Lac de Guiers day jaar ci suuf parce que gis naa loolu wax naa ko ko woo ko wax ko ma ne ko gis naa sandam ñeenti fan balaa combat bi di am kenn fayu ma ci li may wax ni yéen ñëpp kenn fayu ma ci na la concerné li may wax suma diggante ak yàlla la to kon li may wax nii lu ma leer naññ la Modou Lo yàlla na ko yàlla jàppale Modou Lo yal ko yàlla jàppale mu baax képp ku ko bëgg a yàqal ku nekk yal na la yàlla yàqal bi xurmati Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mënoon naa toog sama kër Modou ñëw fekk ma fa waaye duma ko def dinaa ñëw ba fii séedal leen loolu pour ngeen xam loolu yéen ñëpp